aide à la presse mm-hmm. mais naka la ñuy def ba ñoom ñu mën a seen bopp ba di fay fiscalité correctement di si génn comme il se doit euh, jàppale dafa am ay manières yu bëri. Mhm. pour man dafa am loo xam ne dañ ko war a institutionnaliser maanaam ñu ñu xam euh, dans un pays lan moo lan moo lan moo war ci diggante euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy état bi. Mhm. ak ces maisons de presse là comme ñeneen ak ñeneen ñi liggéey ci biir réew mi ni ñu ko mérité tey jii soo waxee ci domaine artisanat. Mhm. parfois dañuy xaw a égoïste on parle de de que la presse mais xoolal tey jii artisanat jàppale leen. et mhm. pour man noonu la état war a liggéey pour ku si nekk ñu jàppale la ba doo soxla à chaque di yëkkati xaalis di fa dugal mais ñoom dinañ mën a euh, mën a nekk euh, en tout cas ñoo xam ne ñu ñu ñu ñu autonome la ñuy doon. Mhm. ñoo xam ne liggéey bi ñuy liggéey dinañ ci mën a gis seen bopp. pour mhm. man loolu nag dafay laaj réflexion dafay laaj xalaat yu bëri comme tey jii Cheikh Omar Diagne ni mu euh, joxe contribution joxe idée bu pertinente. moo xam ne pour man nañu xalaat ci yooyu xool naka la ñuy def pour régler problème bi. nañu bàyyi presse beeg nañu def nangam ak nangam. ku si mhm. nekk soo toogoon xalaat nga ne euh, état du Sénégal soo leen bëggee jàppale presse bi. au mhm. lieu ngeen di joxe de la presse damaa xam man de lii mooy sama idée lii laa proposé. kii nii mhm. lii laa proposé ñu xool nu waxtaanee pour trouver des solutions. mais dafa am loo xam ne mënatut nekk ci réew Sénégal. maanaam un état boo xam ne da ngay nekk moyen de pression soo ñëwee bindal ko titre saf après jàppale presse bi. Mhm. mais ban manière la ñuy jàppale presse bi du nekk ay aide à la presse yu ñuy joxe. et mhm. li may wax le président de la république wax na ko. Mhm. Euh, te moom yaakaar naa moom moom ma ci gën a sori sax parce que su demee bay wax ne euh, tout le temps li nga xam ne ñun ñoom dañ koy def ci effort yaa jàpp ne dañ koy jàppale la presse en réalité jàppale wu ñu presse bi mais ay patron de presse la ñuy jàppale. est-ce que tey jii cette aide dina dem ba ñi nga xamante ne ñooy la presse euh, ñi tax ñuy wax presse parce que. dafa am ñoo xam ne itam c'est Euh, ñi ñi jiite maison de presse yëpp c'est des journalistes. Mhm. am na si ñoo xam ne ni ñuy demee investir dans l'immobilier ni ñuy demee investir si si agriculture wala ci leneen ak leneen. Mhm. noonu la ñuy xoolee presse xam ne fii mën naa fee am wecc ñu dem investir si. yooyu yëpp pour man c'est des yoo xam ne il faut ñu taxaw si. vraiment léegi pour régler sa problème là. idée bii mu jox c'est très bien mais daal nañu xool naka la ñu def et puis ñu bàyyi sa coow yi quoi. yii mhm. di def te bëriwuñu na sénégalais yi am seetlu. xam ndax est-ce que la presse ñoom ñooy naqarlu euh, yenn kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati. Mm-hmm. wala ñenn ña daan wax démb ak bërki démb parce que. ña daan wax dafa mel ni ñoom la de. ñoom la amul différence. Mm-hmm. dara xewul pour man polémique bi ñuy wax polémique amul de. Mm-hmm. c'est-à-dire Ousmane Sonko seetlul ñi def ñi def réaction bi mu waxee ba pare balaa moo wax ñooñu ñoo doon intervenir. tey jii ñi ngay lim ñi nga ne diw nangam ak diw ak diw ak diw ci magistrat yi wala diw ak pas magistrat yi mais diw ak diw ak diw ci ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo ñoom ñooy joxe seen xalaat ci réew mi euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wax bi Ousmane Sonko defee discours bi la dernière fois avant Ousmane Sonko di def discours bi ñoo ngi woon ca lañ daan wax ñoom un Mamoudou Ibra Kane laataa Ousmane Sonko di def discours bi laataa loolu ñaata attaque la jël teg ci kaw gouvernement bi Babacar keneen ak keneen pour man ñooñu seen position la léegi nañu mën a ràññee man dama gëm ma amee si la yi su ma woon problème ak Diomaye tey hmm. man du ma fi ne di mbuboo ay man fii lii laa def ak lii damay dem taxaw en tant que citoyen su dee damaa bëgg politique damay dem taxaw en tant que homme politique jàmmaarloo ak yow comme ni ni ko ñëpp defee ci biir réew mi. yow yow ñeme nga jàmmaarloo ak président a jomaay <laughs> ñëw kii. xam nga xam nga Grenade da nga xaaj 4 am ñu ko dóor nu soj <laughs> non mais da ngay am courage quoi xeex moom boo si demee bay bëgg dem. Hmm. da ngay am courage mais bul xeex di mbubboo presse. mu moo tee nga yem. bul xeex di mbubboo presse. ah baax na bul xeex di mbubboo magistrature. Hmm. loolu c'est un problème. et nañu am courage topp ko ba fu mu war a egg. Hmm. ñu régler ce problème une bonne fois et ñu am en tout cas des gens dignes si biir presse beeg. ci biir magistrature beeg ci biir feneen ak feneen ci biir réew mi dans l'administration. feneen ak feneen ñu fexe ba ñi nga xamante ne nii dañ leen a teg fàttewuñu cendeel la de ak ñeneen xeeg goog maanaam ñi ne woon ci biir administration bi nga xam ne boo ko dul woon rek mu rus euh, mais dafa bëri maanaam dama c'est un exemple que je donne c'est-à-dire <laughs> exemple boobu xëy na cendeel la daa siiw xëy na DGE dafa siiw xëy na CDC dafa siiw ba ñu ñu mën see jot mais ñaata nit waaw mais ñaata nit ñoo nekk ñooñu ci kaw tëb nañ mais ñaata nit ñoo ne ci biir ci biir moo tax quand Guy Marius Sagna Euh, système baa ngi fi système baa ngi fi ba tey c'est une réalité. loolu pour man na dañuy am courage ñu xam ne système baa ngi fi ba tey. Mhm. ñu góorgóorlu ba ñenn ñoo xam ne nii euh, ñu ngi def seen liggéey correctement. Mhm. bi fi Macky Sall nekk ba mu fi nekkee wut ñu bàyyi ñu def seen liggéey correctement. amuñu mhm. compte bu ñu rendre kenn mais ka nga xam ne dafa nekkoon di def ay tooxi duuna ñu jël ko raxas euh, bale ko sànni fële. loolu pour man moom mooy problème bi. mais mënoo tout le temps di changer naan changer ay texte ak changer naa nangam ak nangam bàyyi fi ay nit ñoo xamante ne nii. ci nëbbite la ñuy dox loolu solution loolu c'est valable pour la presse c'est valable dans l'administration c'est valable dans la magistrature ak feneen ak feneen ak feneen ba ci bopp réew sëgam bopp réew nga ñëw fekk nit koo xam ne ni mi ngi fi mhm. muy président Macky Sall nga ne ko ni nga doxee neexuñu dañ lay soppi indi fi keneen après léegi yeneen poste yi ne ci suuf nga ne boo da nga fay bàyyi ña fa nekkoon ça va pas marcher donc pour man kuy def liggéeyam correctement ak foo mën a bokk nga bokk APR rek nga bokk hmm. feneen ak feneen na nga def sa liggéey correctement hmm. nañ la bàyyi nga def sa liggéey correctement mais bu fekkee ne da nga si daan boole lu si bokkut franchement loolu mënul continuer si réew mi hmm. alors euh, Momo dafa am benn benn benn xibaar bu nu bu ma gis léegi Euh, bu may jëlee fële ca sunu confrère nekk fële ca Sénégal. barki démb ñu ngi doon waxtaanee collectif bi nga xam ni daanaka ñu ñoo duppee seen bopp collectif des victimes de Macky Sall nga xam ni Boubacar Seye mi jiite Horizon sans frontières daanaka dafa bokk ci ci ci ci membre yooyu. Mm. actuellement ñu ngi ñuy ni ginnaaw ba nu lancé pétition bi nga xam ne gisoon nañu ko si réseaux sociaux sénégalais yu si bëri daanaka signé woon nañu boobule pétition ñi nga xam nag ñoo di collectif bi di sàkku rek ñu daal di lancé benn mandat d'arrêt contre Macky actuellement dafa mel ni dañoo daal di euh, ci li nga xam nag moo di vitesse supérieure maanaam dañoo bind benn courrier boo xam ne dañ ko jagleel kii di président Macky Sall pour rek mu recevoir leen mu nu wax leen li nga xam ne nag moo di seen i bëgg-bëgg boobule courrier daanaka yemul ci président Diomaye Kassé dem na ci li nga xam nag moo di ambassade des ambassade des États-Unis Italie Union européenne ambassade Espagne ak li nga xam nag moo di ambassade bu bu France. Mhm. nan nga jàngate aussi vitesse supérieure bi nga xam ne boole collectif passé nan ko. ah ñoom de xam naa ne li ñu nekk moom am nañ ci droit. Mhm. te euh, seen gis-gis la léegi nag ci biir réew mi am na ñoo xam ne dinañ partagé ñoom ni ñu gisee mbir yi. Mhm. jàpp ne euh, le président Macky Sall dañ ko war a teg ci yoon comme man parce que euh, pour man soo bàyyee mag Sall mu dem mooy Jomaay dafa lu la neex après dara doo ci fekk. Jomaay dafa lu la neex. mooy euh, tey jii on compte de des des des morts ci biir réew mi on compte des blessés ak leneen ak leneen. Mhm. ñu xam ne le plus grand responsable responsable bu nekk jàppal ne am na responsable bu ne ci kawam. Mhm. le plus grand responsable ci situation boobu yëpp se Macky Sall. Mhm. mais bon lui comme c'est président comme yi ñu gars yi di gëmloo rek bon président munoo ko toppee lu dul haute traison lan mooy haute trahison xamuñu ko soo reyee ay nit ñu bëri du tra du haute traison soo nekkee dans un pays ay accords yoo xamante ne ni sa dëkk daf ci loru ñu ne ñu wax lan mooy haute donc pour man loolu ñoom nañ ko topp ba fa mu war a àgg. ak mhm. tey jii euh, plainte ba nga xam ne Juan Branco yóbbuwoon na ko à la CPI. ak mhm. yeneen ak yeneen parce que pour man loolu moo mën a régler problème bi xam nga tey euh, bu fekkee ne Ousmane euh, ki nga xam ne moom moo di Macky ki nekkoon président Mauritanie comme mm. ay Sarkozy ni ñu ko dundee ak ñeneen ak ñeneen bu fekkee ne def nga lu warul ci biir réew ñu teg la ci yoon pour man loolu c'est un message boo xam ne euh, Bassirou Diomaye Faye fa mu toog ci pale bi dina ko leer ne ñun ñii réew réew mi ñu dénk nii. Mm. bis bu ñu def dofloo ba ay bakkan rot fi wala bis bu ñu euh, fexee ba yenn jëf yi ñaaw yi diw doon def ñu def ko fi. Mm. fii mu mujjee fa la mujjee. donc pour moi loolu c'est c'est c'est des choses yoo xam ne su amee rek dafay dafay dafay dafay régler problème boobu définitivement. Mm-hmm. mais une fois Macky Sall jóge fii ñu ne bon c'est un président la République ñu bàyyi ko mu dem toog pacte de Paris di ñu kookali après su doxantoo Paris Maroc ba neexoo mu dellu France après di tourner ñu naan ma ngay dem ci sommet mais Bassirou Diomaye Faye bu subaa euh, bu ko neexee mën na def la même chose après c'est un président moom su wàccee mu dem ko neex. Mm-hmm. ñu gëmloo ne un président kenn mënu ko topp réew mi ku fi def lu yoon dañ laa war a ah ISRA bari gisoon nañ ko fii. c'est vrai mais soo gisee tey un citoyen man daal léegi man su ma defee toj toj ñu jàpp ma dóor ma ci kaso bi. Mhm. mais président bu defee toj toj. man man de mënuma mënuma sénégalais yi yu ñu jàpp ci kaso bi. Mhm. kii juin lañ ko jàppee kii dafa sàcc. ki dafa ki dafa ki dafa ki dafa rey ki dafa def leneen ak leneen. Mhm. ñu jàpp leen tëj ci kaso bi. mais kële moom dafa nekk tey jii euh, moo doon joué rôle bi gën a mag ci loo xamante ne musiba la ñaata moor nga dem ba ñu lay wax ay. 80 xoolal xoolal li xew ci biir réew mi ay ay ay complot d'état lañ la doon wax euh, ay jël nervi ay dossier d'armement de 45 milliards nga ne loolu yépp le président Macky Sall amu ci responsabilité moom dafay dem toog euh, fële ca ca ca Paris wala ca Maroc. après ñu ne fi rek di di xool pion yu ndaw yi naan bon jàpp nañ diw tëj ci kaso bi jàpp nañ jiw tëj ci kaso bi le plus grand responsable ci Macky Sall te bis boo ko bàyyi mu dem mooy yaa au président muy jomaa Diomaye muy keneen ku fi war a ñëw ne ko réew mi boo fi nekkee président defal lu la neex du mujj fenn te loolu je pense que warut a mën a nekk dans un pays euh, boo xam ne réew démocratie la mmh. ku tooñ nañ ko jël teg ko si yoon suñu texte yi fa ñuy wax naan ay président mënoo ko toppee lu dul haute trahison nañ dem ñu changé ko ñu ne président su fekkee ne da ngaa signé nangam ak nangam loo xam ne da ngaa war sa population dañ la see war a topp. Mhm. président bu fekkee dangaa nekk jiitu réew nga fexe ba créer situation boo xam ne ay nit dañ cee ñàkk seen bakkan. wala constitution wax la nangam nga forcé ni doo def li constitution bi wax. Mhm. ñu toppale ci kanamu yoon. loolu pour man tant que réglé ko dañuy resté ci benn contexte boo xam ne ku jiitu ku nekk ñu jiitu réew da nga def lu neex après ma dem. Mhm. Euh, comme ça. léegi ana bakkan yu rot après nga bàyyil ñu fi ab loi d'amnistie même si euh, xam naa ne ce problème là dinañ ko régler mais bis ah, boo loolu yëpp et que woo le plus grand euh, acteur. ci mm-hmm. ci loolu xew ci biir réew mi yëpp yaakaar naa ne amul benn sens. ak dóorkat yi tamit. ñoom ñëpp kay mboxum gi mboxum gi. <laughs> réew kay jub jubal jubanti rek. alors moom euh, moo dañuy des ci président euh, Diomaye ba tey ndax démb gis nga euh, mu dajale kuréel bi nga xam ne moom moom lañ duppee imam et les di di di Sénégal nekk benn kuréel goo xam ni daanaka ay imam ñoo ñoo ci daal di nekk. ci mm. wàccaayu li nga xam ne nag moo di tabaski bi après imaam yi daal di jaajëfal lu baax ba rencontre bi nga xam ne am nañ ko ak kii di njiitum réew mi. Mm-hmm. nan nga mën jàngatee boobu boobule rencontre bi nga xam ni imaam yi amal nañ ko. ak euh, président Bassirou Diomaye Faye. oui xam nga Sénégal nag euh, dafa am loo xam ne fii lañ ko fekk et c'est une bonne chose. Mhm. maanaam réew dafa loo xam ne da nga ko fay fekk xam ne lii baaxul nga jëlee ko fa. nga jëlee ko fa mais am loo xam ne da nga ko fay fekk xam ne lii lu baax la nga fexe ba perpétuer ko. Mhm. Euh, pour man se une bonne chose su su tabaski jub see ñu yëkkati xar yóbbul xalif généraux yi. Mhm. wala yenn kilifa diine ci biir réew mi dalal.